maa ñëw tey di waxtaan ak yéen ci mbir mi nga xam ne moom suñu maire Alioune Sarr ci la ne di jàppale waa Jobaas surtout ma waaye laago yi nekk ci biir Jobaas parce que Alioune ci jëm boppam moom mun naa ne moo njëkk nekk membre fondateur ah, ci suñu association bi. en 2015 2017 bu ñu koy 2015 2016 bu ñu koy sos Alioune Sarr jëm moo njëkk jënd carte membre moo njëkk jënd carte membre génne un volet de cinquante mille teg ko ci kaw taabal bi.

wax dëgg neex yàlla jàppale mairie bi moom ci affaire aide tabaski bi chaque année depuis 2017 ba léegi mun naa ne Alioune Sarr boo xoolee tey mun nañu ne ko calculé tey tey tey en global tout lu mu bon bon bon bon Alioune Sarr dimbali nañu en ay 5 millions wala 4 millions 5 millions yu warna warna war na parce que tey suñu suñu suñu waxee affaire euh, ndimbal bi ci ci récépissé bi bu ñu ko wut tamit Alioune Sarr moo ci taxaw ba am suñu récépissé wa euh, ba am suñu récépissé def journée journée journée journée ñaari journée yi ñu ci def ah, maire Alioune Sarr def na ci wàllam ba mu mot sëkk wax dëgg def ci wàllam ba mu mot sëkk ci dem ci mbirum santé dem ci mbirum santé mbirum santé mi tey boo xoolee tey ah, carnet mutuel de santé yi am moo ci jàpp bu baax a baax a baax a baax na ci lu baax parce que tey soo xoolee carnet mutuel de santé yi tey daanaka mun nous avons une carte d'égalité nous avons une carte d'égalité 137 nous avons am carte sur 312 personnes sur 312 handicapés mais sur 137 nous avons 90. baax na lool waaye tamit ba léegi ñu ngi tàllalaat mairie bi tàllal suñu loxo. volet volet bi nga xam ne tamit jëm ci lu mel euh, éducation tamit ah vraiment tamit moom tamit mu ngi ciy def kéem tolluwaay parce que am na ñoo xam ne tamit ay personnes la ñu handicapé la ñu xale la ñu jëm tamit ñoom tamit booy wax dëgg ne yàlla de moom Aliou Sall jëm boppam mu ngi leen ci jàppale pour xale yi tamit mun a jàng la xam naa ne daal ah, su fekkee ne amul. bii nag tabaski bii tabaski waxuma la bii rek wax na tabaski 2017 2017 rek tabaski 2018. tabaski 2019 tabaski 2020 il wa deug neex yalla ci participation bu mota mota mota mota mota ci jëm ci diwlin bi ak bi kit ne dafa xat tabaski dafa xat mais xamna ne di defar nañ ko tabaski ah la ne képp ko carte égale licence carte égale licence ni